ha ok asalaamaaleykum ñoo ngi leen di sant bu baax am mbégte comme niñ baaxoo di ko am ci ajuma bu jot dikkaat ak yéen ci émission bi nga xam ni moom la baaxoo séq ak yéen ñu koy wax sàmmal sëriñ Touba li mu moom ñu am mbégte lool teewaat fii ci seen studio Saxum Touba point net wala Saxum Touba l'officiel wala Saxum Touba TV santaat yàlla sunu borom bi moom mi ñu naxee bakkan ba ñu fekk waat ajuma tey bi di rek comme ni ñu ko baaxoo di ko def ci suñu émission bu nekk suñu yaakaar tey ay ëllëg di sëriñ sañ mun Muntaxa Mbàkke Basiru di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te mu wér lool yàlla gën ñu koo kàttanal musul ko ci noon yi nga xam ni noonu lislaam lañu te nekk ci àdduna bi tey nas rek ay pexe yoo xam ni ngir nasaxal li nga xam ne mooy doxalu lislaam yàlla bu ñu am ndam yàlla leen yàlla gàcceel defal ndam Sëñ Muntaxa Mbàkke Basiru noonu sëriñ si nga xam ni ñooy rakk yi ñooy tamit euh, doom yi ak sët di ziar bu baax nag de passage sëriñ Mudu Abib di xalifa sëriñ Abdullahi borom dër bi di ko ñaanal moom sunu sëriñ la sunu xarit la sunu wëlërale yàlla tiñal ko yan bi ba liggéey bi mu bëgg a liggéey sëriñ Touba Hadj Moustapha yàlla defal ko ko lu kawe njort noonu lañuy ñuy tamit sëriñ Moustapha Saliou Mbàkke moom tamit sunu soppe la sunu nit la sunu référence la ndax ab sag la ci yoonu murit doon koo xam ne am na lu bari loo xam ne def na ko ci ñun ci wàllu gëm ak doyloo Serigne tubaax ak kenn Serigne Touba ñoo ngi koy ziar ak njaboot gépp fàtte wu ñu kenn. noonu lañ koy defee tamit cheikh yi nga xam ni seen njaboot ñoo ngi fi ba tey te seen waajur ñoo ànd na àndoon ak côté di Serigne Touba Xaadi Moustapha ku nekk tamit ñoo ngi lay jox sa wàccuwaay di la ñaanal yàlla sunu borom bi tiñal la jan ba liggéey bi nga bëgg liggéey lislaam liggéeyal ko jur yëpp yàlla dafa la ci kaw yi sa njot di ñaanal taalibe yi nag lii di ko mu yaatu taalibe ak pas-pas bu dëgër kàttan ak xel mu sell ak jëf ju sell ñu ànd ñoom liggéey bi ba làq seen gërëm ndax lu rek a fi nekk liggéey sëñ tubaa liggéey ñi nga xam ne ñooy njabootam bi te yàlla gërëm leen buñ ko defee rek mën nañoo toog rafet njort daje gëllëg yërmande sunu borom bi tabaaraka wa taala yàlla nañ ko yàlla defal seen émission sàmmal la sëriñ Tuubaa li moom tey ajjuma mi ngi jëm ci loo xam ni dafa am solo lool am ci dëkk bi te bu ñu seetee bokkut ak santaaneb sëñ bi bëggub sëñ bi nii aussi njàngaleem sëñ bi la communication muy communication mooy saraa mu jàll ni déglu ko am lu mu ca daloo ci ay mbind daloo ko ci xam-xam jële ko ca njariñ wala mu jële ca lor loolu la ñuy wax communication fii ñu toog di wax nii on est de communiquer dañuy communiquer mais lii la ñuy wax communication audiovisuelle caméra moo lay jël nga toog di wax buñ ko tegee mu mel da ngaa toogoon di wax nit ñëpp di la seetaan am na li ñuy wax la communication audio muy rajo nga xam ni da ngay toog di wax kenn du gis sa jëmm wante sa kàddu di feeñ am na communication tamit boo xam ni communication gestuelle la. muy da ngay toog di liyaar ak say baaraam di def nen ci sa kanam ak di def ay geste nit ñi di comprendre la ngay wax mooy sunu mbokk yi nga xam yàlla daf leen nattoo mënuñoo wax communication gestuelle ci la ñuy waxee dem na ba sax ñi nga xam ne ñooy communiquer léegi ci wàllu kàddu bu ñuy wax léeg-léeg seen i cër dee ànd ak la nga xam ne mooy wax ja ngir nit ñi gën leen a teewlu gën leen a bàyyi xel loolu ñuy wax la communication gestuelle. mais am na façon communication boo xam ni par image la photo ndax photo foo ko gisee rek am na lum lay fàttali am na looy jàngate ci photo ba am na tamit loo xam ni danga ko jëlee ci xool nga koy xool moo xam muy cofeel moo xam muy leneen moo xam muy leneen ak leneen la communication par image dangay gis sax ñi nga xam ni ñooy kilifa yi léegi dañuy am conseil en image conseil en image mooy ñi nga xam ni ñoo lay wax toogeel nii. booy wax sàngam defal nii sa baaraam xooleel ne defal nii defal naa ndax ñi lay gis sa photo bi man cee jàngate ni yow kat lii nga bëgg wax wala lii ngay wax ñor na la la communication par image dafa am. ñu gis ni ci sax vue architecturale muy niñ koy tabaxee melokaanu bâtiment day wax ci ñu am xam-xam bu ñu taxawee tiim am taax walla jàkkaloo am taax ñu tabax ko genn tabaxin bi. danañ xam ni taax mii kat lii lañ ci jubloo màndargaal wala kii ko moom kat lii la nekk te lu lay feeñ ci melokaanu taax mi ak ni ñu koy tabaxee conception taax mi fi ñu toll ñun nga xam ni ay jullit lañu bokk na ci suñu aada néegu ñax c'est une culture boo xam ni ñun dañ koo moom tax ba maam ya foo gisaan ñu nekk ay kaas da daan bari ci seeni ëtt néegu ñax danaan bari ci seeni ëtt gablinu seng sax boo gisee format bi bien vrai que day ëmb lu mat ñeenti néeg ba juróomi néeg mais format bi genre format néegu ñax la loolu nag dafa doon loo xam ne conception boo xam ne ñoo ko moom muy bindin ak euh, nasin boo xam ni nosin boo xam ni ñun ñoo ko moom ñun ñi nga xam ne ñoo julli di mu mel ni nag dem nañu ba sax jamono li dox dox dox ba tabax yi bari lool ndax xéewali sëriñ Tuubaa yi ni mu yaatoo am na ñoo xam ni ay mbokki taalibe même bu ñu dee tabax ay étages ak i terrasse boo xoolee ca kaw day am leen loo xam ne day màndargaal jëmmi néegu ñax nga mën caa jàngi ni kii kat dëkk ci kër gi wala ki moom kër gi moom kat alali Sëriñ Tuubaa la wala alali lislaam la mooy alali Sëriñ Tuubaa ba tey loolu day wax nga dem ci bâtiment di dugg ci dëkk gis melokaan ba nga ni lii kat ñi ko fi tabax diw sàngam lañu askan sàngam lañu diw sàngam lañu bokk ndax ñoom fu ñuy dugal seen xaalis bu ñuy tabax nii lañ leen di koy tabaxalee kon la communication dem na sax ba nga xam ni ay bâtiment man nga cee jàngatee loo xam ni dañ la may lu bari ci xam-xam bu fekkee xam nga li nga xam ne mooy bâtiment te gis ko bu baax. ñu gis ni dëkk bi di Touba sëñ bi moo wax bu gul lu jëm ci yokk karaw yokk karaw mooy yàlla sunu borom bii sidde la nga doon ni ku ñuul ni ku ñuul raar ngay gis. wala ñu néew nga ci gis seen karaw gudd ba daanu ci seen ndodd li ñu yàlla nattoo mooy karaw goo xam ne day yem yàlla xam nag lu tax mu def ko contrairement ak boo demoon tey ji Europe nga dem France tubaab yi seen karaw day buubu yu jigéen ñi nga dem ci yeneen askan yi la même chose nga dem ci sunu mbokki arab yi la même chose suñu mbokki chinois yi dem fa karaw gi tamit day mel ni dafay gàtt yàlla moo bind aw askan askan bu nekk mu am fu mu la dëgal wante bind la ci façon bindin boo xam ni wuute nag nam bindee keneen ka nekk feneen moom nag naa rek moo xam ak la mu ci jublu ndax chaque milieu a ses réalités bu nekk ak la nga xam ne moom la ko yàlla moomeel loolu nag domaine yàlla la duñ ci sori mais yàlla xam li tax mu def ko mu gis ni nag senegal dem nañ ba sunu soxna yi ak góor ñi léeg ñi soppi li nga xam ne mooy seen melokaanu karaw nu karaw mu mel ni nag yàlla bu la bindee ni nit ku ñuul laa la def nga dem xeesal soppi la nga xam ne mooy dër bu ñuul ba mu la joxoon mooy kat yàlla bind nga ma def ma nit ku ñuul wante maa lànk duma ko nangu damay dem soppi sama der mel ni tubaab ba tax ñu bari ñoo xam ne ñoo ngi koy def ñoo ngi dund ay xat-xat ak i jafe-jafe yu bari muy feebar yi der ñoo ngi koy am bu ñu màggatee kenn du leen mën a gis màggati golo wala màggati dàngin lañuy nuróol jël xaalis bu leen yàlla jox tamit ñu waroon ko jariñoo ci ñam di ko jëndee ay produit di ko ñàkk ci loo xam ne ak neen la ñu dem ba sax seen wér-gi-yaram dem ba cay sooxe ndax am na ñoo xam ne tey jii mari day taali bu ñu oppoon xeesal nañu xeesal goo xam ne seen deru yaram en tant que ni ku ñuul tey jii àttanul sax opération wala bu ñu opeeree fu ñu ñëw fu nekk day xët ndax der ba dafa woyof te ñoo ko teg seen bopp ndax toppandoo ak bëgg soppi ni la yàlla bindee karaw yàlla def mu gàtt dem naa sax ba gis fi mu toll ay góor ñoo xam ne dañuy léttu yàlla nañ ci yàlla musal ndax yàlla moo ne araamal naa ci góor muy jigéen jigéen lu araamal naa ci jigéen muy góor góorlu ku nekk dama laa bind ku ma bind ku nekk nag am na loo xam ni moom laa la nattoo muy ci colin ci doxin ci jëfin ak fooy toog yamal foofa am na góor ñoo xam ne dem nañ ba tey dañuy jël mees yi jigéen ñi jëfandikoo te mu araam ci jigéen ñi ñoom di ko jëfandikoo yal nañ ca la musal ak lu ko fi jar ana góor ak yokko karaw ana góor ak léttu ay mees gisuma ko sànku ak ñàkk pas-pas ak ñàkk li nga xam ne mooy tawfeex rek moo leen dab mais de góor baax na ca melokaan bi ñu ko daan gisee daan ko naw siddi ko ab cir jox ko wàccuwaay muy mu def nen wala bàyyi karawam yam wala karawam na ko yàlla yemale mu def ko noonu wala mu koy wàññi lekk wàññi boo xam ne dana méngoo loo xam ne jikko yi nit ku yiw la ñu gis ni góor à part létt yooyu am na góor ñoo xam ne dañuy dem ba jël seen karaw watif wat watif foo xam ni bokkut ak sunu aada bokkut ak sunu diine watif foo xam ne fu sànku la ñoo ngi koy royee nag ci ay nit ñoo xam ne dañuy wax ay vedette muy nit ñoo xam ne dañoo am aw tur te la ñuy def bëgg ràññeeku bëgg foo leen gisee xam ne ñoom la ñu wat seen bopp wati foo xam ne ñoom rek ñoo koy moom nga xam ne ëllëg da naan kii di diw sàngam la ndax wati moo moom lay watoo doo leen jaawle te kenn ndax la yëngatu may na leen ko la ñuy yëngatu tamit bëgg mu jara tax na ñu koy def yow mu ci yëngatuwul nag loolu leen toppandoo sopp yow ma nga xam ne doo fa def loolu leen toppandoo sopp te ngaa mel ni nga mel tudd nanga tudd doon doomi diw doomi diw sàngam dëkk sangam dëkk sangam yam ca loola mais nag munoo nekk Sénégal doon ab mécanicien ab menuisier wala ab journaliste bëgg a dem toppandoo am Ronald Reagan wala am nangam nangam ab obama wala nangam naan na muy woto laay woto na muy tente karaw laay tente karaw wala nangam ak nangam loolu sob la ak roy loo xam ne sa yoon nekku ci te boo yemoon ci dala yàlla séddale da nga nekk ci jàmm ak salaam te du tee tamit nit ñi la war a xam-xam la ana sob gu dugal doomu aadama góor muy dem bay jël karaw gu ñuul di ko weexal te yow yëggagoo ci atum bi jaaw walla nga koy mboqal mboq wala nga koy maron ndaxte réew sàngam seeni askan seen karaw dafa maron yooyu yépp bañ dogalu borom bi la loolu lépp indee sa bopp coono la loolu lépp toppandoo loo wut a toppandoo la yàlla nañ ci yàlla musal te bari na ci sunu jamono léegi bi watif yoo xam ni boo ko xoolee doo xam watifi mandari la doo xam fi lan la ak cànkute rek ab boobu sëq nga wàññi wet yi ba mu kii wàcc ci kaw mu ni jubbu nu ab jubbu bu rëy boo xam ne kenn xamul lu muy nuru mel ni ku ñu yan sayu bopp wala saaku ngooñ lan moo fi jar sànku ñàkk taw féex rek yàlla nañ ci yàlla musal karaw gu ñuul nga jël ko bijaawal ko tent ko mu weex lan moo fi jar te doonu goo mag moo xam da ngay tool ci bijaaw karaw gu weex ci mag la bare ndax yàlla sunu borom bi moo bindee mag saa suy màggat mu indaale ak loolu nga xam ne mooy karaw gu weex yow nga doon ko ñuul demu ko fenn amu ko fanweeri at wala ñun fukki at tent sa bopp wala nga tent sa sikkim wala say moustache naan damay nurulu vedette sàngam muy diw sàngam ma nga xam ne siiw na wala footballeur la wala basketteur la wala boxeur la wala président la wala nangam la te nekk ci meneen réew dara jar ko fi nañu toppandoo ñii nga xam ni ñooy sunu sang yi liñ ñu yaree kaalawu sol mbaxana mu jot tur ki njaarim léeg nga defar sa bopp wàññi karaw gi soit nga wartu nel fonde mu leer nañ wala léeg-léeg nga wat ko wat boo xam ne wat bu maase la taaye moustache wàcc tuuti sikkim ndax sikkim dafa baax ci am murit sikkim bokk na ci li ñi nga xam ni moo ñu wutale ak ñeneen ñoo xam ni dañoo jàppee seen bopp ay jullit te bu du ñuy jullit ndax am na ñoo xam ne dañuy wat ba mu set wicc murit nag taamu nañ ci nga bàyyi tuuti sikkim mandarga la boo xam fii nga bàyyi fi tuuti mandarga la boo xam ne ku la gis xam ne yow mii murit nga wute nga ak ñële sunu mbokk yeneen yi moom dañuy wat ba mu set wicc te loolu moom doonul moom loo xam ne gis nañ ko ci suñu mag ñu baax nga jël si sikkim bi bi jaawal ko te doon loo mag moustache yi ñu dem ba nga xam ni gis nañu ne ay jigéen ay soxna nga xam ne dañu ku baax ku nekk rek ci àdduna jigéen mooy sa waajuru jigéen te liggéey ba mu liggéey doxin ba mu doon doxin mu sell yàlla gërëm ko moo tax tey jii nga doon koo xam ne doom ju ràññeeku nga xool leen soxna yi jàmbaar yi ñuy cité dans l'histoire du Sénégal dans l'histoire de l'islam ñu am ay doom yoo xam ni tey jii ay référence lañu ay royukaay lañu ay seetu lañu te seen tudd far ba faw bu ne gisee jaañte ak nongu dogalu sunu borom bi nekkoon ca la yàlla gërëm moo leen may ndam loolu naam soxna jaara bu sa borom Poroxaan naam soxna waa asawaala ma ca naaweel xoola soxna buso xoola soxna Fatou Issa Diop xoola soxna yi tedd yooyu ah. xoola maam Anta Njaay ñuy ay référence ak ñeneen ak ñeneen ak ci yeneen kër yi nga xam ne ay tarixe la ñu te nekk biir lislaam naam fàddewale ñu ñépp ay référence lañu nañ daan doxe nekkee woon ko daan ko jëfee daan ko dundee daan ko liggéeye doyloo sunu borom bi nangu dogalu sunu borom bi sellal moo leen may ndam ji nga xam ne moom lañu am tey seeni doom ba ci seeni sët ak i sëtaat ñu ni sukkat leen raamal liggéey leen jox addi ñu féetewoo li nga xam ne mooy wàllu ñaan mokkal alxuraanu karim toog fa ñu war a toog mat sëkk la doon yow am lu mel noonu ñu daan muuru musóoru musóoru gu jot sol col goo xam ni seen dënn sax doo gis put gi kaalaw ba nga xam ni seen seen mbagg yi sax doo ko gis ba ci seen euh, ba mu wees seen conco yi soxna yi mag ya maam ya bu ñu daan woddu ñetti sër lañ daan woddoo diis gann mel na war a mel sol yére yoo xam ne day diis gann ba doo gis dara ci ñoom lu dul seen xar kanam lii di seen cati loxo ak seen cati tànk toog toogin bu yiw wax wax ju jiw jëf jëf nga am ko mel noonu te loolu la yàlla gërëm ci soxna nga ko tegg fële ni man kat bopp neen lay def nga xam ne foo romb rek yow yaa ngi faati malaaka foo fekk nit di ñaan bi nga rax ca ak bopp kese booba malaaka yi war a nangu ñaan sax duñ fa teew ndax malaaka du teew foo xam ne jigéen mu dul boppam ndax boppam awara la ngay rey nit ñi rek nag def na yaa ca nekk fu greffage bindoo ak lu mën di jar nga dem jëndi ko te kat kër ga dana maa ngi saako ceeb dana maa ngi dépense ëllëg facture ndox bu ñu fayal facture courant facture téléphone je m'en fous greffage bay jar 30 000 60 000 laay jënd ci teg ko sama bopp bi damaa war a dem barab sàngam te damaa bëgg di ñu gis ma nit ñi mën laa gis te doo teg greffage boo teewoon ak sa musóor gu jot mel na nga war a mel ba nga def say maap war nga euh, létt yi nga xam ne cosaan la nga def ko te mu suñu diine nal ko boo demee tamit danañ ñi kii Kumba Njaay la de kii de dégg yaay la kii nangam nangam kii nangam nangam day na lu tax nga dem jëli greffage boo xam ni la première dame ci tel réew wala la grande dame wala patron sangam ci tel réew doon jigéen moom lay euh, moom lay def ci boppam ma ne mën naa dem royi kooka doo am greffage mel ni ma ma am de xanaa deuxième façon wala troisième façon ba ngay am ak quatre-vingt mille te kër gi kat wàcc nañ fa doo xam ne saako ceeb la quatorze mille lay jar te manqué na bidon diwlin quatorze mille manqué na lii di saabu manqué na fa dépense ëllëg manqué na fa nga jël lépp yow def ko ci looy këpp ci sa bopp rek mel ni nag junne ku la xool jox la li nga xam ne mooy wàccuwaayu junne ndaxte loolu moomuñu xamuñu ko nga jël ko na këpp ci sa bopp def na yaa ca nekk dem fa mees gën a seere nga dem jéggaani ko ñëw fay kat ba mu létt la foo jëm gàddu loo xam ci sa bopp bi mën na sëkk ab sars ngay dangar dangari rek foo demee ba yàgg wiccax sa bopp rek mais si yëngatu ñi nga def ne yaa ca nekk fekk booba yaa ngay rey yaa ngay yàq te la ngay def tëggoo ko fenn ñu dem ba loolu amoon ay jamono ñu xaamaa bal ci muy dafa yaatu woon te dëkk bii di Touba doon dëkk boo xam ni dundal benn dëkk ci àdduna bi ndax borom kaka sanc di sëñ Touba Xaadimu Mustafaa bokkut ak kenn yemut ak kenn moo tax lu moom du yem ak dara ngeen koo xam bu baax salon yi ni fi sëq ak jóor ci Touba jigéen ñi ay doom yi soxna sax nga daan gis ñu ubbi salon ñoo xam ne ci yoonu lañu bokk waroon na sàmmal seen maam li nga xam ne mooy dëkkam bi ak li nga xam ne mooy aaday murit ñoo daan samp salon salon yi nekk ci ginnaaw jël ay nit ñu fay nekk di létte wante nag ko toog sëriñ Touba di sëriñ Touba te li mu bëgg tamit mooy nekk sëñ Saliou Mbacke buuboon ñépp génne leen dëkk bi biir Touba jamono sëñ Abdoulaye kenn xalaatu ko fa woon jamono Cheikh Moustapha Karim mag ñooñu xalaatu wuñ woon di soppi seen euh, ay melokaan hmm? nañ leen yàlla bindee lañ daan dox mais ñuy dox jamonoy dox ñuy roy ci tubaab bi ba jamonoy sëriñ Abdou Khadre sëñ Saliou jamonoy Alaaji Baara sëñ Sidi Moxtaar ba ci sëñ Muntaxa ñu ne nañ essayé dox dox boo xam ne day méngoog jamono salon yi ni fi yaataayu ba ci dëkk bi foo tourné rek salon lay doon foo turne ma ne la dañuy jël mbedd ma gën a yaañu ca mbedd ya tànn fa magasin ba gën a placé def ko salon de coiffure nangam jël ay bopp nit nag dessiné ko daaj ko hmm? léeg sax ñu jël bopp nit ñoo xam ne ay statue lañ dugal ko ci seen i vitrine jël ab greffage këpp ci wala ay létt yu ñu létt ba pare nga xam ne yaa ngi tooñ tooñ koo xam ne tegoo ko fenn ndax li ngay imposé wala ko doxal ci dëkk bi di Tuubaa dëkk bi ko moom lu yàlla sunu borom bi gërëmul nekku ci njabootam lu yàlla gërëmul nekkuñu ca yéen ñi nga xam ne nag ay sët ngeen doon yi soxna sañ a ubbi ay salon di ko tuddee seeni maam wëlbati ko dafa def loo xam ne seen i maam mosu caa nangoo jaar nu nga mosu ko bëgg ngeen bëgg ko yoonal ci dëkk bi sëñ bi neen ci bitti ak seen i salon du ngeen bokk bokk ci yoon yi tamit tënku ci li nga xam ne rek mooy njàngale maam yi mu ko mun rek ngeen xajal ma ak seen i salon à doom yi soxna yooy di ay mbàkke mbàkke wala yeneen ñoo xam doomi cheikh la ñu ay taalibe sax osé ñëw Touba ubbi fi ay salon dem nañ ba salon góor yi bari fii salon jigéen ñi bari fii dem nañ ba bu xew amaan da nga naan est-ce que xew wii la xew Thiès xewul fii la xew Kaolack xewul Touba jigéen ñoo xam ni dañuy yàqu xaalis rek solu ba jekk ñëw taxaw ci salon gaare seeni oto dugg ci biir. ñu puudar leen a puudar ba koo xam ne bu tëboon dugg ci àll sax génn boo muy muytul yow boo euh, amutu seet da nga naan bukki la mu defe ne moo ca nekk ñu wékkal ko loo xam ne ci bopp bi maar day taali soy na sëkk ab yan mel ni sayu bopp ñu jóg ñoom ñëpp capp-cappal génn sollu nuroo dugg ci oto naan pin pin pin dëkk bi defe ni fii dëkku promenade la du dëkku promenade fii dëkku bi yare la jàngale jëmbat ay jikko jaamu yàlla la du promenade de ay eh, promenade de Thiès ak promenade de nangam promenade de nangam dem leen foofa fii du promenade fii lépp lu ñuy def di matin au quotidien day day sëkk njariñ ci doomu aadama day sëkk am njànga ci doomu aadama te ku ñu gis naw ñu ndax day xam ne nous sommes des conservateurs la ñu ca mag ña duñ ko jëndee dara loo xam ne àdduna la mais nga gis ko sëñ Saliou buub yépp génneen dëkk bi jamono Cheikh Abdoulaye kenn xalaatu ko fi jamono Cheikh Moustapha kenn xalaatu ko fi bi ñu ñëwee nag ñuy di di di dof dof lu naan dañuy nuru nuru dëkki taax yeeg tubaab yi roy leen ci coli nag nu ñu def ak nu ñuy tegee seen bopp ak nàngam sëñ bi leen du doon Touba gii de Touba gii de moom luy gërëm rek moo fi nekk génne leen ñoom ñëpp génn nañ fi safinatu amaan gàcce nga la ma sëñ mudloo ñoom def ci liggéey bu am solo xuddaamul xaadim def ci liggéey ba am solo am taalibe sëriñ tubaay yoo xam ne jaayante nañ ci ndax dëkk bi méngoog na nga xam ne noonu la ko sangay bëggee jamonoy Alaaji Baara nag sa noonu jamonoy sëñ Sidi Maxtaar nag sa noonu ba ci jamonoy sëñ Muntaxa Mbàkke yi ñu dañ leen génne dëkk bi góor sañ na karawam bari mu ne naa wàññi sama karaw ndax karaw dañ ñi bu baree sobe la mais boo koy wàññi méngale ko ak loo xam ne aaday murid la war a aaday lislaam watul nel bu fekkee nel jàpp na la bu fekkee nel jàpp la wàññil te wàññi tamit bu mu sotaante sutante boo xam ne dangay ngay génn aw askan wala génn aw xeet mais li ñu gis ay coup muy façon watin yoo xam ne kenn xamul fa mu cosaanoo am na ñoo xam ne dañuy dem ba dugal fii ci seen watef bi ay flèches yoo xam ne boo xoolee ay signes ñàkk ñi gëm lislaam la te xamuñu lu tax ñooñu def ko bañ bañ leen di roy leen gis ñu def ay x lañu gis ngi def ci Y ab juuñ juuñ juuñ lii dafa am nu mu tekki ñi gëstu am na signe yoo xam ne boo gis ñu def ko ci wate dafa nu mu tekki am xam ne dañuy dem def ci ab croix croix dafa am nu mu tekki ñu toppandoo roy dàq xam te ñoraguñu la ñu def lu ñu gis rek ni ñun war nañ ko mën a def du loolu nit bala ngaa dugg ci dara da ngay xool la ngay dugg mooy lan dugg ci dara gaaw ci ak génn waajal ko bala nga caa dugub moo gën mais sëñ bi daf leen a buub ñoom ñëpp sànni leen ci biti ay góor ñoo xam ne dañ doon def comme ñoo xam ne ñoo nga ay ñiw déléeg ñoo nga fële nga xam ni mooy New York ak it wala feneen ak feneen ak feneen wala Jamaïque jàppee dëkk yooyu comme Touba ñu leen du nekk de sëñ bi leen ci biti jël fulla ak fayda ak yar teg ci wet gi ñoom ñëpp ñu able yokk karaw yow jigéen koy def boo dee jàpp te war a waajal waxtu est que karaw ga nga xam ne mooy dàtt ya ak mèche mi ak greffage bi nga teg da nga mën a jàpp jàpp mu sell am na dem na sax ba jamono ñoom ñu muus suuti am greffage yu gën yoo xam ne da ngay këpp dana gis jigéen koo xam ne day muuroo ab greffage mari day taali de greffage bu rëcc nga xool ndaal bopp la ma nga weex sàll karaas doo xam ay copp-coppi karaw ngay gis nga ne ndekk yow nii nga mel te boo muuroo lii ñu defe nii nangam nangam xoolal ma gàcce yooyu ñu teg seen bopp te mënoon ngaa toppatoo sa karaw gën yàlla jox muy karaw naturel ni yamale ko fa mu yam létt ci létt yoo xam ne ay maam la wala ay euh, yeneen létt yi jigéen yi nga xam ne cosaan na ci lislaam cosaan na ci sunu aadala te du tee na nga war a mel nga mel ko boo dee tee nu jox la sa wàccuwaay mais nga topp ndoo tubaab bi salon yooyu ne demoon nañu ba ay jamono non dañ fay def yokk karaw mais dafa doon ay lieu de rendez mooy lii xew rek ak salon boobu ñuy wax salon de massage nekk dakaar te mu indi coow loo xam ne abdoon na réew mi jigéen ñi dafa daje góor ñi mu doon lieu de rendez-vous yal nañ ci yàlla musal am na ma amoon na fi góor ñoo xam ne bu ñu xëyee rek taal seen oto sañ sa bay bañ salon salon ñu ne fa daam drame bu ñëwee fekk jonga ji rafet rek ñu càkkalaar yal nañ ci yàlla musal. loolu mën naa am ci beneen dëkk waat dëkk bi Tuubaa du fi amee ku ko fiy def tamit di nëbbatu bis nga ñëw roq ba moom dana lonk siiwal la ne la jëpp ci kanam nit ñi ñëpp gis la ñu toroxal la nga génn ku fi nëbbatu def lu bon roq baa ngi fi salaw yooyu nekk fii dem bañ fay rax sax léeg ay togg ay mbaxalu biir yi xarale la nga gis kenn koo xam ne daan salon sàngam de ma tey man lañu pare na bis bi tey man la jël comme kii nangam nangam man lañ ko bàyyi rek nangam ñu daje fa di ardonde di nu di tëddi euh, càkkalaar ak di fo rek di caaxaan boisson mbaxalum biiru xar toog fi góor ñi jigéen ñi mel ni tuleeg màlle sëñ bi neen acca ci biti Tuubaa moomul lii génn leen joxe ndigal ñu génne leen fii salon góor ñi ñu génne leen ndax jamono dox na ba tey jii am na lu xew loo xam ne moo xew ci sald massage yi yàlla nañ ci yàlla musal mu am ci salle de coiffure yi muy jigéen góor na lay naan lay jig góor naan peñ mu liis maay peñee jigéen pour mu liis góor doon borom kër te bopp soxna si jàmmoon wala doo boppu kenn koo xam ne amul borom kër yore sa ay afro ak say peñe di ko peñe di xëcc di xëcc ak jigéen kan moo ko war a peñe kan moo ko war a létt ñu dem ba ay góor di létt jigéen góor di peñe jigéen ak di ko defal li ñuy wax peñ mu liis ñu ne ay jullit lañu ku doonu sa na bu laal boppam koo xam ne lislaam araamal na nga laal boppam bu laal boppam góor man naa wat moromu góorum jigéen na dem ca jigéen ñi te jigéen ñi bu ñu demee foofa tamit nañ méngale li nga xam ne moom la ñuy def ak li nga xam ne moom la lislaam bëgg loolu lañu bëgg loolu yomb na loolu la sëñ bi bëgg loolu nit ñu baax ñu bëgg yomb na nañ ko def mais ñu dem ba góor saña jël bopp jigéen bu doon soxnaam naan la ci diw afro da koy peñ mu liis dem ba góor saña jël yaramu ku doonu soxnaam téye ko nii ñu am contact physique direct muy dessiné ci yaram bi léeg-léeg dessin yooyu sax ñu def ko ci loxo leen def ko ci ndoddu am na ñoo xam ne sax dañ koy def ci parti yoo xam ne wax dafa dëgg yàlla du sax ay teggin ñu koy wax fii yàlla nañ ci yàlla musal dem ba góor sañu jël ay we di ko pooseel jigéen téye loxo jigéen ak loxo ak loxo nga xam ni boo dee saafoon te nit jox ko loxo am na loo yëg ci moom ñu téye ko naan dañ koy monteel ay we we yu gudd yoo xam ne boo ko teg we ya ko yàlla sàkke am na ñu bari ñoo xam ne ay soxna lañu tey ji seeni we we yañ ci daan kole yàqal na weye ba tey ji kenn xamul lu ñu nuru boo leen gisee dangay defe ne ñoo xam dañoo daaj eh, dañoo tëj ci seen baaraam weewa dañ war a nangam te dara wul ko lu toppandoo tubaab bi weeyu gudd weeyu gudd sobale lislaam daf ñoo sant sax boo toogee ab diir say we sëq na ko dagg dagg bu rafet ndaxte we am na parti boo xam ne mën naa denc sobe nga yëg ko ak ñàkk ko yëg te raxas ko dana naka sa noonu karaw yow ngay guddalu karaw yokk karaw guddali we yokki we jël saw yaram di ci dessiner lu koy dessinel góor la goo xam ne doon sa borom kër loolu mukk ala kula arim am ci dëkk bi di Touba moo taxoon suñ bëgg soon ne jamono ngi ñëw salon yooyu ñuy wax salon moderne te góor nekk fa di xëcc karawu jigéen di létti jigéen góor nekk fa di monteel jigéen ay we góor nekk fa di dessiner ci yaramu jigéen danañ ca yegg yi ñoom dañuy gis loo xam ne dikkagul moo taxoon sëñ Saliou buub leen sëñ Abdou Khadre buub leen sëñ Alaaji Baara sëñ Sidi Moxtaar ba ci sëñ Muntaxa ne gën leen dëkk bi di Touba fii du seen place ñu def ci ay at yoo xam ni combat bu metti la na xeex bu metti ndax am na ñu dem bay nëbbutu sax tëj salon yi nekk ci kër yi di ko fa def mais am na taalibe sëñ tubaay yoo xam ne buñ jaayantee dégg ndigal foo man di nekk lañ la luqali teg la ci loxo ñi nga xam ne ñoo ŋànk ni nga xam ne mooy wàllu yoon ñu luqali ñëpp ba ñu demee ba xam ne ay daan mu ngi ciy am fi naa ngi ciy bëgg a jóg ñëpp ni nocc mel na suñ ma bëggoon ne at yooyu ñu xeex ngir bëgg bëggu sëñ bi sax dàkk ci dëkk bii di tuubaa ñu toog ba jamono yi ay salon tàmbali feeñaat ci Touba ma ni déet la woon démb mooy tey la sëñ Touba bañoon démb moom lay bañ tey ba tey la mu bëggoon démb moom la bëgg tey ba tey muy la yàlla sunu borom bi gërëm doxantul boori kër sëñ ma sàmba si mu sax ma sàmba fi jàkkaarloog buntu kër gi am na ko fa di dital benn salon en zinc salon baa ngi nii sunu caméraman jël na ko mu ngi nii salon bi dañ fiy def ay pose xeef dañ fiy def peñ mu liis dañ fiy maquiller ay nit mais salon bi jugal amoo place Touba lii ngeen di def sëñ bi gërëmu ko bugg ko lu buggul nag kenn du ko def ci dëkk bi salon baa ngi nii ngeen di jàkkaarloo en zinc doxantul dem ba fa la nga xam ni mooy mbedd kër alaaji sëriñ Gueye borom station yi nga xam ni sunu imam bii di sëñ Afia bu su mbedd moomu lay jaar jëm si ci jumaa ji di jiite waxtu yu juróom ñetti salon yu mag mi ñu ubbi noonu ñu jàkkaarloo boo tourné. fi tata 2 bi ak 6 bi garé saret di fi garé di woote nit ñi salon yaa ngi noonu mi ngi nii sunu maan jënd na ko salon a ngi nii salon 2 salon 3 waaye dindi leen salon yi waaye salon yi amuñu place fii ci Touba sëñ bi bëgg ko fii ndax la ngeen fay def ak dessin yi ngeen dessin di nataali bopp yoo xam ne dañ ko wat wat boo xam ne watu yéeye la Touba moomu ko fii watu diine moo fi am watu foo xam ne ku la gis xam ni yow njabootu sëñ Touba nga alali sëñ wala nga maasale sa karaw maase boo xam ne dana jekk lool rafet lool defal sa moustache bu baax bul tent sa karaw bul tuub sa karaw wàcc ko ni ko yàlla bindee ndax yàlla rëbb na kuy soppi ni mu la bindee te fi moom la ñuy def yéen ñëw ñuy def loolu di soppi seen karaw yeeg nàngam yéen ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen réew yi wala yeneen gox yi doon góor di soppaliku doon jigéen opération yooyu doon jigéen ñu def la ngay góor yéen a yem même àtte ndax kay yàlla daa dogal muy góor mu ne bëgguma doon góor jigéen laay doon dem gis koo xam ne jàng na science mu modifié ko kee doon jigéen mu ne man maa doon jigéen góor laa bëgg doon gis ko jàng science mu di modifié ko la yàlla dogal ci yow nga lànk te nag ëpp na ci ab jaam kay borom moom sàkk ko moom ko te mu jóge ci moom dafa delluwaat ci moom la mu dogal ci moom dama koy soppi. ñoo ñuy soppi ngeen yéen tamit da ngeen a soppi xañ na soppi bee daa gën a doy waar mais yéen tamit da ngeen di soppi yéen yam même àttewaay est-ce que hôpital yi mel noonu danañ nangu ñu sampal ñu ko ci Touba déedéet est-ce que médecin yi mel noonu ay eh, spécialistes yi mel noonu danañ ñu nekk ci hôpital Touba dañ naan déedéet nañ leen bañee ñu nekk ci hôpital dëkk eh, bi di Touba noonu la ñu bañee tamit salon yi soppi melokaanu doomu aadama wala góor ak jigéen di fa jaxasoo wala góor nekk fa. di def loo xam ne jigéen bu ñu seetee lislaam dagganul ko daggadu ko ëllëg boobaa moomu ko ayoo ci biti génn leen ñoo ngi jaajëfal bu baax nag waa Safinatul Amaan ndax tey yokk karaw googu dem nañ ba nga xam ne li ñu wax pose sil sil mooy xef xef mooy lii yàlla lu mu sàkk ci doomu aadama rek moo ñaale ko ak doomu aadama mu nekk ci jëmmam rek dafa am lu tax nga xam ak nga ñàkk xam bët fàtta da ko yomb luqeeku dafa yomb poussière dugg ci la ko yomb te bët la ci biir daanaka verre la bien vrai que c'est une euh, peau lu euh, nooy la wante ver lay nurul lant yooyu nga xam ne moo nekk ci bët mooy lii nga xam ni moo weex te muur per bi ngir poussière ak luy gaañ bañ ci dugg yàlla wutal la ay xef mooy lii muur bët bi di ko nëbbu mu ne xefi doyul naa defaat leneen ci suuf loo xam ne mooy karaw yu ndaw yii moo defee karaw yu ndaw yii moom kat dana gën a mën a tëju te su tëjoo dara du mën a ron ci suuf dugg ci biir bay gaañ bët yàlla bëgg doomu aadama ak am yërmande ci doomu aadama ak yéene jàmm doomu aadama ak noonu lay doomu aadama tamit war a yéene boppam jàmm comme na ko yàlla yéene doomu aadama ni naa dem buddi xef yi mel ni xefi tubaab ya xef yoo xam ne danaa sàjj gudd lool booy xool mel ni gisuloo di piis moom mën na ko ci sama xef yi ba góor gu ma jàkkaarloo mun a piisee nga xam ne man mii kat wuyu laa wala nangam laa wala nangam laa la bëgg a wax lan moo ko fa jar yow am nga borom kër borom kër gi eh, sopp na la ba mu takk booba ay sil monte ay xef amut fas yéene ànd ak yow ca nam la takkee ànd ak yow am njaboot ba ku nekk denc moromam ah, yàlla na yeex nga dem ba ci digg bii ni damay monter loo xam ne damay tax mu gën maa bëgg bu la bëggatoon dan na takk yamal te loola soyons naturels ne soyons pas artificiels artificiel mooy lu ñuy créer di ko yokk ci doomu aadama pour mottali ab taaram loolu mooy artificiel bu leen tricher il faut être modeste et simple naturel ni la yàlla bindee melal noonu ku lay bëgg bëgg la ca ku la ci dul bëgg bàyyi la yàlla bëgg na la moom ndax naw na la ndax nam la bindee sagal nga ko. ni ko Maolana yaa am bindee ni kontaan naa ci bëgg naa ci dama ci soppi dara xarit boobu rek doy na xarit nga bëgg lu neex nit nag doomu aadama comme yow nga def monte ay xef mu ni sàjj nag boo muy sa boo duggee ci oto boo deful ndànk booy romb oto bu dee oto Tuubaa Mbàkke wala kaar yi koo romb boo muy da nga ko fattaale ndax xeef yu gudd yàlla nañ ci yàlla musal nga def ne yaa ci nekk nag boo jógee nag piis rek non seulement li ngay dépensé ci énergie pour ubbi sa bët yi xef wi da nga ko aja aja aj ba sa kattan gi waroon dem ci tànk yi sidditi tànk yi ak loxo yi sax ci xef wi la sidditi xef wi lay dem ngir mën koo yëkkati ndax diisaay bu mu diis muy benn coono beneen bi kool ga nga xam ne moom ngay jël di ko kolee loolu di xef wi xamoon boo xam posé na nga ca boo xam ni baaxul ci ndoxum ba da am déet xamoon luñ te def loo xam ne ëllëg mën naa wàññi saw yaram dara am déet ngeen danga ko fi def tracom dégg ngeen ko trachome feebar la boo xam ne feebaru xef la mooy xef boo xam ne dafa lemu dugg li jëm ci biir di metti gumbaal na fi ay nit ba tàyyi yow yàlla may la ba di normal amuloo trachome nga jël loo xam ne mën laa jox trachome nga def ko ci taf ko ci biir nag mu kole ngay sàjj sàjj rek yëkkateeg ferme rek def na yaa ca nekk soo demee ba mu mat nga ñëw ni ko dindil ma mu dindi la wala nga dindi ko sa bopp saa soo koy dindi yaa ngay daggaale benn we ca dàtt ba euh, benn karaw ca dàtt ba te karaw bu la lëjalee nee nañ la gën ndax boo ko watee day dellusiwaat mais jàpp ko nii rek buddi ko ca dàtt ba dootoo ko fa gisaat yow xef yi la yàlla sàkkal ak niiw muy muur say bët di la dimbali ngir sa ndoxum bët yàgg fi nga yàgg a gis mu aaro ngay xëcc rek muy euh, tepp saa soo defee montage xef booy kii rek yaa ngi yóbbaale ay karaw ca dàtt ba bu yàggee dootoo dese benn karaw boo desul benn karaw kenn du la mën a xàmmeeti ndax lu yàlla def ci doomu aadama rek ba ñu xamee ko ci doomu aadama buñ ko ci gisutul rek day dool leneen ñaawaay sax mën nga ko cee jële mën ngaa dem ba xef yii ni muy rafet ak di dimbali nit non seulement ci wante yàlla def ko ci nit ba ñu taamu ko ci nit boo gisee ci nit rek da ngay kontaan boo ko amatul danga naan kii est la nga dem ba ñàkk xef yooyu lu ko fi jar. boo naturelé yàlla bind na ma sàmba Ndiaye ni mooy sa alal par A ou B bu nekkoon Conakry wala mu nekk Gambie wala mu nekk Mali war a doon sa borom kër bis bu yàlla dogalee sa biddiw feq nga war a dugg ci négocier ma Samba Ndiaye moomu dana ñëw ka nga war a àndal te yàlla dogale mooy sa borom kër par A ou dana ànd ak yow ñaata nit ngeen fi gis muy ay jigéen. dugg ci néegu sëy génn ci duggaat ci néegu sëy génn duggaat ci néegu sëy yàlla tuddoon ne danañ jaar foofu wante kay seen borom muy alali kooka moo leen di mujjee da gis nit dugg ci ñeenti néegi sëy jigéen génn dugg ci juróomeel ba toog fa sax fa dàkk am fa njaboot goo xam ne njaboot gu barke kooka la kooka muy alalam yàlla daa dogaloon lii jaar fi ndax dogalu sunu boroom la mais kooku par aw bee moo koy mujjee kon lu di dof dof lu nii njëkkante bi lan moo fi war ku nekk xaaral yàlla programme am daf koo nos nosin boo xam ne bu sell jaar yoon jamono bu nekk ak la ci war a xew jamono bu nekk ak la doomu aadama war a dund war koo am fàttali li kenn wax sëñ Moustapha Saliou Dia màggal gi nga xam ni jamono yooyu waajur bi sëñ Saliou Mbàkke mi ngi fi woon yàlla dogal yaram bi sutante mu dala délégation officielle ci màggalu Touba gi nee na woon yàlla sunu borom bi ak yoonu Serigne Touba wii aw sor la woo xam ni sor wi dañ koo taxañ sor wi nag jamono ju nekk ak la nga xam ne moo war a feeñ couleur ba ak fasinu nañ ko ràbbee loola bu génnee da nga naan lii la mais buñ demaatee ci beneen jamono buñ tàllawaatee sor leneen ñëw mooy yoonu murit fu ñu toll fu nekk rek day am loo xam ne dana ci yokk yàllaa ko programme noonu sëñ Tuubaa bëggee ko noonu nit noonu la dundam demee yàlla daf ko programme d'une façon boo xam ni boo ko bëggee jalkati rek boo moytu ndëgg sërëx nekk ci say tànk nga daanu ca yàlla nañ yàlla musal ci daan ci ndëgg sërëx yàkkamti nag moo koy waral ak bëgg lu wuuteeg li borom bi bëgg mooy tax jaam bi am natt yu mel noonu mais ku ànd ci dogalu sunu borom bi doyloo sunu borom bi sant ko ci nam bindee ak nam la melal yàlla sunu borom gën laa dolli waaye sant leen yàlla bu la bindee rek ay doomu aadama rek dèjà benn cant war na jox lam xel. def la nga dib jullit la ngay alal sëñ Tuubaa njabootam gi ak njaab ak seexam yi wutal la ay waajur bett la ay ngëneel ak i xéewal wutal la ak njaboot nga am sutura santal yàlla loolu yàlla de la di ko njukkal lam la defal dee ko ci sant yam ca bu waree dolli dana dolli te ko sant ko nekk ci sunu borom la yàlla lay dolli waat ndax c'est reconnaître le pouvoir de Dieu sant mooy nongul yàlla li nga xam ni moom la moom te nit ki bu la defalee nga ne ko jëf day tax ëllëg bu la fekkee mën laa defalaa ndax naan kii gore na kii il est mais manque de reconnaissance totale causé par une ignorance moo ko waral ñàkk gore li ko laytaay du lenn lu ñàkk jàng ñàkk a gëstu te du lay ndax ñi jàngut ngi fi yeewu xam li lislaam santaane di ko def ñi jàng ngi fi yeewu xam li lislaam santaane defuñu ko kon xam moom bu ko kenn jël lay taayoo ko ni moo tax defuma lii ku bëgg xam danga xam boo xamul royal gis nga soxna sàngam doon royukaay doon ku sell doon ku nangu li yàlla dogal tënku ca la nga xam ne moom la lislaam dogal euh, nangu maam ya mu doon na ko ca moom nga roy ci kooku boo jàngul tamit xoolal ni muy doxee ni muy jëfee nga roy ca boo jàngee gëstul téere yaa ngi nii boo jàngul déglul borom xam-xam yi waxtaan tey yéer ci wàllu diine wax nañ ba sonn la waaja waxoon rek mag ma sëñ Tuubaa noppi naa ñun wax na ñu dégg bind na bàyyi fi jëf na ñu gis boole na ñoo njaboot goo xam ne ay tànneef lañu bu ñu baaxul bu nekk rek ci ñun la mais moom wàccoon naa ñun xëccal nañu ay xéewal dagaanal nañu ko ci liggéeyam ba mu bàyyi ko ci sunu borom bi tàbbi ci suñuy tànk ak suñuy loxo xéewal yooyu nañ ko xéewloo méngale ko ak li nga xam ni mooy gën ngaa sell xéewloo sant ci sunu borom bi santaale ci sëñ Touba yàlla dollu ñu salon yi génn leen yéen a ngi nii salon yaa ngi nii ni mu amee fii la amee Daaru Xuddus amee na ko ci yeneen dëkk yi nekk Touba mais fu ngeen man di nekk waa Safinatul Amaan danañ leen jox li nga xam ne mooy seeni adresse ñu ñëw génne waa leen dëkk bi parce que la fiy nekkoon sëñ bi jëlee ko fi moo ngeen bëgg indiwaat sëñ mun taxaa la sëñ Touba bëgg la bëgg waa waajuram yi nga xam ni ñoo njëkk doon xalifa seen adde mu la ñu bëgg la bëgg magam ñi ko jiitu ci xilaafa gi la ñu bëgg la bëgg ndam la bëgg te ndam loolu nag caaxaanu ci te murid caaxaanu ñu ci dañ koy jàppale mu am ndam ndax amam ndama moo gën ci ñun tey gën ci ñun ëllëg dañ leen weeje de Saxum Touba jóg na fu nit nekk ci tuubaa di def na ko sunu noonu xamal ne ñoo ngi say tànk waxtu lay xaar de waxtu matee rek ñu ñëw ci say tànk waaj leen waaj leen parce que leen li kat danañ leen reeteet ndax lislaam moo njëkk a santaane nit ki bu dee def lu bon reeteet ko bu ñépp xam ne reeteet nga ko bu fekkee ku am jom la am fulla bëgg ab deram bëgg sàmm deram ak suturaam dana bàyyi la muy def maanu ci mbiram moytu leen bu leen jëndateeg moom bu leen dem ci moom di def nangam nangam dëddul leen ko ko ginnaaw bu fekkee ku bëgg njariñ la dana xam ne askan war na ko ginnaaw dana soppi doxalin pour amaat askan wi bu laajee nag sifaay lenn sifaay moom fi la fekk baax moom yoon a ngi fi boo tëyee yoon tamit murid yi am na ñoo xam ne baatin lañu yore fi ñu toog la ñuy toog dóor li ñu dóor yàlla wàcce ci yow natt yoo xam ne dootoo ko nekk nettali ba faw am na ñenn ñoo xam ne nag moom euh, bu ñu amee liggéey euh, waa waa wàll ci liggéey bi da ngay nekk ni muy suñu mbokki Baay Faal yi ñoom ñoom bi ñuy waxee ni sëñ bi nee nag ku muurul Tuubaa na nga ko able ci jigéen ñi bi ñu duggee ci liggéey bi ñëpp muuru nañu ku dugg Tuubaa fi mu toll fulaar ngay yore te bu ñu demee nag ba ngeen të të të të maslaa bi yàgg te indiwul saafara ñoom moom ah yam lu ñëw sëñ Tuubaa dara de duñ caaxaanee sax déglu sëñ Tuubaa duñ ko jegee caaxaanee saa su sëñ bi ne lii la ku ca tënkul ku nekk na leen ni ñoo ngi ci sa kaw. yàlla na yàlla dafa dégg ak topp góor leen yéen ñi nekk ci atelier yi. tey ñaw ñaw yi ngeen góorlu tamit ndax lu fi nit sol yéen a ko ñaw à la jóge ca tubaab ya la jóge ca tubaab ya ñi ko fi indi ñooñu tooñ commerçant yooyu xaalis bañ cay dabu lañuy yàq moo ko ëpp te booba est-ce que danañ ko jariñoo danañ ci am tamit li nga xam ne mooy li gën déet ñuy aaye moom ku ko jaay ku nekk doo ca lu nekk araam na ndax la tax ñu aaye ko daa araam lislaam rafetlu ko yow ma ca nekk di ci yëngatu loo ca fare araam na statut yi ngeen jël di ko def ci seen biir atelier tailleur yi doomu aadama bu ko nuróoleeg dara yàlla da ko màggal da ko sagal da ko teral ngeen dem jël ab statut boo xam ne day jël jigéen ñu defal ko ay ween moom man melokaan jigéen am ay hanche ngeen teg ko ci seen vitrine yooyu solol ko ay yére waaye gars yi te ngeen a bañ a yàq war ma jëleen yàlla jox teraanga ji leen yàlla jox sutura si leen yàlla jox lépp looy def di ko nuróoleeg nit rek di ko nat ci nit di ko yat araam na ndax màggaay ba doomu aadama màgg ak teral ga ko yàlla teral yàlla ñu yàlla dafa dégg ak topp góorgóor leen yéen salon yi gis ngeen salon yaa ngi nii ñi ma amee fii la amee Daaru Xudus amee ku ci yeneen dëkk yi 112 village moo fi nekk 112 village yëpp danañ fa dem nemmeeku ji ñuy yëngatu ci li nga xam ne mooy safaan ñu wili fànde leen bu ñu leen wili fànde ba pare jox adresse yi waa Safinatul amaan jox ko waa yoon ñu jëflanteeg yéen sëñ bi tamit bu laajee sëñ bi yëkku dañ dem ba ci sëñ bi wax ko ko def leen ci dëkk bi li neex sëñ bi li sëñ bi bëgg def fi li neex sëñ bi li sëñ bi bëgg moo ñi may jàmm tey moo ñu jàmm ëllëg ku fi dekkee nag safaan bi a ngi ñëw da nga yendu yendu goo xam ne doo ko nettali kenn yàlla nañ yàlla dimbali sàmm ñu sunu fas fas sunu ngëm. ñu bañ a jamalee dara ak Serigne Touba bañ a yamalee dara ak bëggu Serigne Touba jël dëkkam bii di Touba gën koo fonk ci suñu jëmm yi nga xam ne sax yàlla naxee nañu bakkan buñ ko defee rek yàlla def ñu jàmm def ñu ndam sëñ bi bëgg ci ñun te bu sëñ bi bëggee ci ñun ñoo am li ñu bëgg tey ak ëllëg yéen ngi ci àndoon ak seen bokkum taalibe Serigne Mor Touré loolu leen indil loon ci sàmmal sëñ bi li mu moom ñu war koo gën a xóotal ci yeneen i euh, fànd ñoo ngi sant nag ñi nga xam ne ñoo ñu faral di teewlu saa su jot li Saxum Touba l'officiel comme demee ni sëñ dàmbay ñuy gis ay réaction ak i jàngatam yu am solo ak mbokk yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ñi nekk ci biir Sénégal fàttewuñu kenn fii la mbégte mi amee ëppee fii la leen gën a soppee tamit ñoo ngi leen di gërëm bu baax di gërëmaat de passage ñiy teewlu saa su jot rek lii di émission yi ñu ci indi ab jàngat wante di gërëm sunu caméraman di Ablaye Sow di leen sant di leen gërëm di leen jox daje incha allah ci beneen ajuma ci beneen.